jaam wóolu naa la xam nga sama waay nga tailleur bu mat baa ngi wóor naa la mbel góor sa kër maam ba fa demee képp ku fay ndaan naan yaa koy ñawal caab bande sa kër maam lay lay lay la man bëgg naa la bayaala caamoo woor naa ah waay waay namoon na la Pambay bayaale maa la raw beug yalla ma lay ziar ah xam nga yow bo ñew ci place bi damay content xamul tax ndax ah, damay ci content ci ñaar da nga nek ko xamanteni sa baay radiyallahu taala ba ku baax ka koo xamante ni Sénégal yépp ko bëggoon muy alaaji Njaga Mbay di koo xamante ni su ma la gisee rek sama xel day dem ci moom mm. di koo xamante ni bu dee way bu dee dégg bu dee temps bu dee ndaanaan lépp looy wër rek daje na ca moom tey yow heure boo ñëwee sama place bi toog man su ma sañoon koor gi yépp sax da ngay nekk sama place bii nga xamante ni bis bu jot ma ñawal la ab mbubb bu jox la waaw mais bayaale. waaw man xam lu ma jaaxal na. Ah. man dama fay dégg tailleur yu bari yi fi nekkoon ñu ma fi déggoon. waaw sama gars yi fi nekkoon yëpp mais tey fu ma jaar ku la ñëwoon bayaale. maa la wax loolu bayaale xanaa da ngaa am. déet jamono jàngiwaat ñaan bu baax ne damaa am ñaan sëñ ah, sëñ kii moom may ñaanal léegi sëñ Mansour borom jinne yi ma yor xam nga ko ah. sëñ Mansour. borom bal moom <laughs> borom bal xaw mi. keroog dañ ne ma ñetti jinne laa lay boole yoo xam ne sa place sa duñu xëy si man damay rey apprenti jinne. yoo kooku kenn moom. kooku moom ay ñawal borom euh, moom moom ab ceebam képp jabaram rek Fatima bu la toggalee ceeb boo ko lekkee daanaka boo lekkee ci ceeb bi rek moom ñaan gi na ko. Serigne Fatima ñoom lépp am baatin ci ñoom. Eh. waaye nag euh, euh, yow damaa bëgg tey jii. bàyyi léegi daal tey moto bi doyul da nga see boole crampon. mooy càq-càq bu dikkee du Sadio Mané de. Ah. ab càq-càq la de waaye dafa dem ba yëpp dugg ko muy sol ay crampon. waaye li xanaa xaw man joueur bu yàqu la. ah da ngay football waroon na ah, da nga war a football nii. nii xanaa gisoo ma sama équipement. naa la kay moom ngay xam naa <laughs> moytu la. waaw mais si kanam eh. bàyyi loo fàtte yóbbante yóbbante àq la. waaw. Mame Ndak. waaw nee na bi nga ko ñawal xamoon dañoo ne ci koor. ba ah, lenn waaye xam waaye bu ma bu bul ci ñaar bul ci ñaar demal. demal lenn tafkaay la ay waay. Ah, ah, dimbali ma rek dañoo ne ci koor. lenn tur yi mën nga ko yokk dafa naw. te baal ci kanam. baal ma àq amul solo mbay maa ngi jéggalu baax am sori. dégg nga solo euh, gis nga dama bëggoon ñu waxtaan ci lu am solo ndax yow xam nga da ngaa nekk koo xamante ni. Euh, da di leeru Ndiaga Mbaye mais damay gis Sénégal dañuy def ay hommage dina rendre hommage Alaaji Ndiaga Mbaye Alaaji Ndiaga Mbaye est-ce que rendre hommage dëgg dëgg dëgg yéen njaboot gi yéen ci gis seen bopp parce que léeg-léeg may gis ñu hommage Ndiaga Mbaye ci télé ba mu jeex yow mii Pambay de doomam du ma la ca gis du ma la gis ca plateau ba beneen xalamkat la ñuy jël duma ma la gis ci témoignage yi du ma la gis sax sa tur sax duñ ko fa tudd lu waral loolu. waaw mais xam nga ñoom nag. Euh, euh, lu waaye def boppam. dëgg la. waaye nag euh, ñoom loolu lañu am. dëgg la waaye ñun yàlla dañoo jox deret. dëgg la ak yàlla def na tamit fu ñu waxee. Mm-hmm. wala ñu yëkkati suñu kàddu. Mm-hmm. di nga ci dégg baatu Ndiaga Mbaye. Mm-hmm. wala nga dégg ci lu nuroog moom. kon la sa pap bu waxoon rek. ku du xëccoo leneen. dëgg la. te nag euh, daa jiwu leen lool sax moom. Mm-hmm. ndax jàpp naa ne fii moom doo fi dégg kenn ku fi woy sa yooyu ba mu jeex doo ci dégg baatu Ndiaga Mbaye. Ndiaga mm-hmm. Mm-hmm. waaye nag lu waay def bopp. waaye fii nii nag lu waay def bopp man nag gis naa ne Ndiaga Mbaye man ah, gis nga dama koy wax man rendre hommage dëgg dëgg gis nga rendre hommage ci ay teg ay son mag ay teg ay mu wax dëgg yàlla Alaaji Ndiaga way na li mu war a way te heure boo ko bëggee déglu di nga ko déglu man de sama gis-gis. rendre hommage dëgg alaaji Ndiaga Mbaye mooy bàyyi leer bi fi alaaji Ndiaga Mbaye bàyyi nga jël doomam jooyu valoriser ko jàppale ko ci musique yow yàlla macha allah dalaa def alaaji Ndiaga Mbaye la mu daan def nga ñëw def ko kon tey alaaji Ndiaga Mbaye jug na fi de waaye jugu fi ndax yaa ngi fi kon tey ji lu waay mën a defal alaaj Ndiaga Mbaye te defaluloo ko ah man de gis naa def def googu kon feeñul baa ngi sël ndax yaa ngi nii santial yàlla ah sant yàlla ci bu ñu booleeg. Mhm. ku mel ni Cheikh Mansour Mbaye. waaw waaw waaw mu baax mi waaw. tey jii waaw naa ne mën nañ ne sax. Mhm. tey jii lim ñu jox. Mhm. moo gën sax ay woy. dëgg la moo gën. leneen ak leneen. dëgg la ba tax na ndax dañoo jox yàlla suñu borom. dëgg la yàlla yaakaar naa ne moo gën way. moo gën way. Ah. waaw waaw moom da moom da moom da lay joxi jinne ba pare teg la ci yoonu yàlla yàlla na jàmmam yàgg léegi nag damaa namm loo xam ne place bi namm na yoo ne ci koor waaye may na ci tuuti rek xam nga sa bàyyi lam daan way dama naan déglu alaaj njaga bay di jooy may ma tuuti ci ci fàttali ma alaaj njaga tuuti ndax sama xol bi sedd may ma ci tuuti sarax ma rek loo ma ci may ma jël loo ma jox rek may yóbbu ngéwal alimul xaybe alimul xaybe eh waay نبي على كل لنا برسول سيسان واو واو càmba be demba càm man woot naa la ee way ma ale du la tayoor bu mag bi la maa de ale caamoo cey baay ale ngi ne ku fi sol lu rafet caam yaa fa jaar laay laay la laa ew ndeysaan kenn du ko teg dana ko yuux li dafa waay waay sama weyam ndeysaan waay kon waxtaan wu tey jëf juyu moyu teraanga boo ko gan fu mu toll di wax sa teraanga yow yow baaxool wayal wayal bu bàyyi de wayal ma ñëw wayal rek ma ñëw si ma way nde Faatumatu way nde dama ñëw ku fi newul la teral tanoor des na ah. mbeleelaat way nde kii boo ko yóbboo Njaasaan dana jox sa soxla gis nga ko nii allah boo demee jox ko waaw pare gu ma ci keroog ba nu xeexee gile keroog ba nu xeexee gile. ah baal may julli ci kaw yi si jàll baax baal may julli ci kaw yi baal may julli ci kaw yi. mën fën gi bu demee di ci mën foofu sa jabar. wayal. xoolal jërëjëf jàmbaar léegi léegi jàmbaar. jàmbaar jàmbaar war na maa wóolu. ni ñaw jàmbaar la dinaa ko ràmbu sa jëlal. ba Aliou yaa ngi dama xaral. maa maa xam ne ma wayal dafay dama tàng wayal wayal rek. doomi Ndiaga Mbaye sama kër ngir teral mbubb mi maa la ko jox ne glace. wu yaay. ne kii jàllaa ba mën naa dund mën naa naafile ku fi sànn baax Thiam. yaa ko ñawal caam. waaw waaw. ku feesoon lu baax. mbuum mi yaa ko ñawal caam mu ngi jéem a réer waaye mbuum mi yaa ko moom. anniversaire ak ngénte du lépp yaa ko ñaw caam. voilà ki sama apparence bee ko moom garam bu bëgg sama apparence bi maa ko ci la la la ah. Marouille. Balmi. Ah. yow li ngay wax féexal na un yi Tu laa tër loolu yow dara féex jiile ma ngoox. buñ sangoon sol noonu yére yi. tereet baa Tu es wayal man booy way càmba bel demba càmba nga tudd mbégoor sama xol day jeex. mooy génn def tànku neen samay dàll ba ñu fi am ciseau bi ma xoolal ma ñëw ko borom jinne yaa ngi noonu taalibe Masumbaay Cheikh Fatima te ma laa jox yére yi baal ma simbi caay ji jox la ko boo sumee dafay ñaaw baal ma ji dese caleçon jar na ko jar na ko baal ma simbi caay ji dese caleçon dama nga yow yow yow yow yow dañ laa war a teral dañ laa war a bëggal. Baye Alé Thiam baa ngi boo paree socc ba kenn laal la may naa la sama socc. Baye Alé Thiam boo demee wëñ ñi nga xool tëri boo ko jaay. baax na. Baye Alé da ngaa woor damay bañ nga ndogu bàyyi aale war a mayaat damaa xamul lu ma am may naa la kii xaw ma ku ko ma sama yoon nekk jëlal yow yaay doomi Ndiaga Mbaye lu ñu la defal du wëñ yaa ngi noonu yii couleur boo bëgg bu la neexee njàmbaar saat loo bëgg am na kii des tu commande xaw ma luy rajo waaye jëlal rek ba dama xool rajo boo ko boole kontaan nañ trop Frama jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye am nga teraanga yow yow Amadou Baye yow mu fi taxawaalu ñu yow doomi Ndiaga Mbaye nga ne fi ñu ñu bu la nit ñi rendre hommage ma rendre la hommage am lépp maa la ko jox bu la neexee jaay bu la neexee may lépp yaay borom. waxtaanu tey jëf ju mayul teraanga. yóbbu yaa ko moom boo ko teralee. dara du fi des waaye waaye Mbengor ñëpp tudd leen. Bande xaaral jawaan loo ci tudd rek baalu ma la yëpp may naa la lépp yow yëpp yaay borom yëpp jëlal. dafa mi ci ah! mi ci mbel ah! góor borom cawan la. cawan day tudd sama dëkk ma. waay waay doomi jaga bay ji bu cawa sa kër maam. ban nañ sama kër maam. waaye allay caamoo ban nañ kër maam. neex sama kër maam. jërël boo paree bu la sama yoon nekk ci. yi may naa la ko photo yi. photo yi bu ko fi bàyyi. table ji di nga ko soxla boo paree jël. man tey maa wekk fenêtre bi nga yóbbaale ko. yow li nga way dafa neex. nañ waxante dëgg. ale moon xay bee. eeway. Eh, ale moon xay bee. xaaral ko. nabiyun ala kulli la nabi rasulu. am. jëlal bi maa la ko may. boo demee lu ci français nga paasa ko. <laughs> non yow yow. képp ku daw ma yeggee damay fóot doo ko paas. waaw waaw. photo bi ko woon a kii sama maam kii gis nga ko nii boo xoolee lekk xool ni ñun benn famille la bëgguma ko woon a maye mais la jox photo bi dinaa ko may. dafa mi maam wàccal rek maam nag wàccal yow tam dafa bañ. laay laay la la naa ci photocopie yónnee la naa ko photocopie yónnee naa Mbaye jërëjëf yàlla na yàlla guddal sa fan. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbaye jërëjëf kontaan na jërëjëf jërëjëf ah waaw waaw jërëjëf Mbaye yaa ko moom. jërëjëf ah. Mbaye yaa ko moom. eh defal ndànk yow defal ndànk. dama ñu la laaj dama defal ndànk.

ana basiro bu ko way day indi soo nangu na yërëm loo ci way jàpp sa way nangu na yërëm warul way soo koy jërëjëf mbay basiru borom mbég mi layoo non non billaay li bagage fi desoon yëpp génn naa ko moom amatu fi bagage moom kay xanaa amatu fi bagage mbay jërëjëf kontaan naa de ah maa gën a kontaan mbay yow dafa maa gën a kontaan baal ma socc maa ko abbaat dégg nga ah, basiru mi moom moom mooy kat moom sama apparenté la waaye naqare la waaye bàyyi ko xamul man ma am sori maa la ñaan ba yërim ci waañ dara waañ dara lu dëgg yow koy xanaa mbay bu la neexee toog bu la neexee fanaan bu la neexee dem yaay xool yére yaa ngoog bu la neexee dem. <laughs> waaye kontaan naa de bàyyi. billaay billaay billaay billaay mais nag bul demagum ba kaw da ngay dem. ah ah da ngay dem. ah yow moom xam naa ne. baal ma yéen yëpp yére kii fàtte naa ki bokk ci. kat wóor na yàlla dama ko fàtte kii ñëw jàmbu. maa ngi jéggalu de lii de ba xam nga damay jaawale. kii moom comme damay bañ a histoire te borom ko moom. waaye kii du yére jëmu caam ya Koro baal ma baal ma yii yow xam naa ma yii damaa fa damaa jaawale tàngoor bee ma jàpp mais yii wala yaramee tàngoon rek waaye gis ma naa à yii daal gis nga à yii ah, bu weesoo yére bii ak bii defe naa ak bii ah ak bii ak ak bii déedéet déedéet déedéet waaw ak bii ak bii bu weesoo yi ak ventilateur fàtte woon naa ne mamee ko moom gis ak bi ak li kayen bi may bindé bu weesoo li yaakaar naa li si des mën nga koo yóbbu la mën ngaa yóbbu lii yii dem moomu ko moo tax kontaan naa ci yow Mbaye dëgg jërëjëf Mbaye te eh, damaa fàtte naa am bi ko moom mais jëlal bi déedéet déedéet Mbaye loolu moom boo ko yóbbul billaahi boo ko yóbbul Mbaye dimbale boo sama xol day jeex yóbbaale ko sarax ma rek ma kontaan waaw Mbaye jërëjëf après xam naa naa la woo sax jërëjëf Mbaye xam naa après naa la woo waaye ci jàmm rek. maa ngi maa ngi sama saako fi mu ne. bàyyi ci koor gi. waaw maa ngi ci koor gi. ko ngi ci koor yii soxla woo. ah an kay. damay hmm. ragal mu ëpp la li nga ci li nga ci wàññi day bari nag. dina baax. waaw ah, féerloo ko ci koor gi rek. loolu lañ ci da nga yàq si rek. waaw ah, féerloo ko ci koor gi si rek lii boo ko jëlee tam. waaw ah, féerloo ko ci ma bàyyi la ko féerloo ko ci. ah waaw waaw. yow moom am lu ma la may après. yow su ma waay nga ñoo jërëjëf jërëjëf Mbaye. <laughs> jërëjëf jërëjëf Mbaye. yow xam naa allah. waaw bu yi paasee ba waaw ñu génnee ci koor gi waaw dinaa ñëw nag. incha allah mbay ñu waxtaan incha allah incha allah ànd seeti benn problème. <laughs> door sa kër maam ba fa demee képp ku fay ndaan naan yaa koy ñawal caaboo bayaale ci bandeng sa kër maam lay lay lay man bëgg naa la bayaale caaboo